acca rang muy suus ñu jayi jayi faña fañaxi ànd ak kan Jax production kañ la wootee sama gars yi ma ni leen ah ñu ni le 23 octobre di dimanche bi ñu jëm yàggatul dara comme d'habitude open lay doon benn drapeau 1 million cent francs ñu ni fan lay xewee ñu ni terrain gaal gi ñu ni kan kan ñoo koy feggoo jarul laajte waa waaw mbayang lum ah madame Sène ak kan ñu ni ah Momo Ngom le général des généraux ñu ni entrée 2000 pour tour ñu ni 16 3000 loge mille francs ba tax na nee naa la Jax mooy ñëw si troisième journée mbokkum ndeyum dur ñaan kon le 23 octobre troisième journée de la saison ah tuq sa bënn saañ ba réer lay doon kon gars yi bu ko kenn tardé gaal gi la ñuy day neex day saf ak le golden boy